barkeb sëriñ bi gannaaw loolu nee na mi ngi bàyyiloo xel takk der yi ñuy yabal ci dëkk bi ñu xam ne dëkk bi dafa wuute ak dëkk yi ndax dëkk war ma la ñu yàlla jox war ma war ma dëkk fi di ñuñ war maal te moo di jàngalekati alxuraan ak i jàngkat ak nit ñu yiw di boroomi xam-xam ak ñu bokk ci sëriñ bi ak i seexam bàyyi xel ci yu bari ba tax duñ ko def te ku leen topp bañ sës mën nañoo def liñ bëggutoon a def